ñoo fay une loolu génnul sama gémmiñ mais dama ne ñoom dañoo toogoon waxtaan ak état ak ki nga xam ne moo taxawal état ñu ne dañ leen di jox ndàmpaay kenn ku nekk jox nañ leen ndàmpaay loolu Sénégal yëpp gis nañ ko xanaa ku bañu ku dem ku demul jëli mais dama ne man affaire bi léegi dëj dañ ndàmpaay boobu sax ñoom su ñuy wax ndàmpaay boobu sax dafay metti ci ñoom euh, parce que nee nañ nekk euh, pupille de la euh, nation yi ñoo xamante ne tey jii waa les engagements n'ont pas été respectés et même par rapport ak xaalis bi ñu leen di jox sax dañuy jox ñii bàyyi ñii donc c'est que de non la ñu dégg xaalis boobu état la loolu su fekkee ne am na y a des dysfonctionnements qu'il faut corriger parce que nit ki soo digganteeg moom dara nga ne ko dama lay jox nangam état bi nangu ko créer pupille de la nation créer ku leen di gérer ñi leen di gérer war nañoo def li mbir mi laaj war nañ leen koo jox mais daal vraiment affaire u Joola bi moom metti na trop yàgg na man am naa ay xarit ak mbokk yoo xam ne dañ cee dee mais affaire boobu war nañu fexe ba dëj bi jeex bon renflouer ko tam moom laa doon expliquer léegi may la am na ñoo xam ne màkk la ñu gaaño maanaam woon naa ay maam yoo xam ne màkk la ñu yem ba ñun xamuñu léegi ñoom ba ñoom dara mais ba léegi nekk ñu leen dëkk c'est-à-dire que nit ñi nañ wooye mais màkk du géej aussi ah kenn xamul fan ngay dee ba bëri nañu bëri na Sénégal yoo xam ne bëri na Sénégal yoo xam ne ils sont morts ñu doon dem France ma ne ku nekk da ñaan yàlla das ma ndànk rek ñaan kenn ku nekk am mujj rafet yàlla delloo la ki sa biir kër waaye gis nañu ñoo xam ne ay milliers de Sénégalais qui sont morts euh, entre Libye ak itali ñoo xam ne qui moor morts entre le Maroc ak l'Espagne nañu nañu nañu seetaat nañu wa nañu woyofal xol yi ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk mais su doon dañuy seet ñi dee ci avion daanu ci avion ak ñi nga xam ne dañoo dee ci biir géej gi mais quand même le Sénégal là kon dëj yi dana bari tous les jours. waaw ah, mais xam nga dañu ubbi ubbi enquête on a ouvert une enquête bi mu amee mais enquête boobu on a vu que le dossier a été classé sans suite parce que jusqu'à présent la justice n'a pas encore fait son travail. dañuy waxante dëgg aussi mais quand la justice ne classé naa dossier. deuxièmement c'est fini. mais attends, attends, non dire que c'est classé c'est-à-dire que am bi amul suite. dañu ubbi enquête te enquête bi amul suite xamuñu fu mu terminé deuxièmement dañu waxoon dañuy dañuy construire benn wax Wade avait euh, joxoon na espace bi mais ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo wàññule mais demandé woon nañ à que ñu construire mémorial bi ñu leen waxoon dafa dañ ko waroon def fii ci corniche mais ba léegi mémorial boobu kenn construire ko am nañ droit di ko demander. am nañ droit nest pas. ok lu ñu leen dig beneen bi aussi les pupilles de la nation. am nañ droit ñu def évaluation par rapport à ça. d'accord naa waxoon nañu lii. léegi gis nañu lii ak li ak lii ak lii léegi il faut ñu def évaluation parce que même bu fekkoon ne am na ku si juddu tey ku si juddu am na 18 donc nu mu mujjee yooyu la ñuy laaj yooyu question la ñuy laaj état bi pour ñu apporter ñu ay solution par rapport à ça ñu indi nit ñu si loolu mais yooyu ba léegi ñun ñaa ngi xaar chaque année ñu defaat même discours reconstruire